Sénégal dafa nekk ci ay jéego yi mu def ci wàllu secteur extractif 2013 adhéré nañu ITIE 2016 ñu jag jagaatal code minier bi mu nekk code boo xam ni am na ay jéego yu am solo 2019 ñu am ñaari loi benn bi sur le code pétrolier benn bi sur le code euh, la loi sur le contenu local secteur gaz pétrole beneen bi ñu am laa loi sur le gaz léegi nag secteur minier dafa amoon benn sooxe bu ci am mooy amuloon loi sur le contenu locale maanaam fexe ba soqali gox goxaan yi ci wàllu PME PMI e local ci wàllu formation formation des jeunes si wàllu emploi locaux si wàllu transfert de technologie li fa amoon mooy RSE entreprise ñoo doon def rek fi sabilillah par exemple pour le cas de Thiès dama lay jox par exemple 2017 entreprise yu gagné plus de combien de milliards des centaines un milliard rek lañ jàllawaat ci dëkk bi ci dépense sociale c'est moo dem ci santé donc loolu RSE lañ koy tuddee ñoom RSE nag du lu baax parce que entreprise bi marketing lay def li gën mooy contenu local contenu local dafay nekk boo xam dañ koy ñag encadré ko waxtaane xam day soqalee gox goxaan yi soqale réew mi forum civil nag ne du ma xaar ba loi boobu ñëw laata loi boobu du ñëw damay dajale tous les partenaires ci ndimbalu Oxfam dajale parlementaires yi waxtaan ak ñoom dajale syndicalistes yi dajale institutionnels yi moo tax tey baabu dina ci ñëw léegi ñëwaat ci Thiès première région minière pour waxtaane loolu ndax lu tax ñu dañ jàpp ni société civile xeltu la war a nekk du rek ñaxtu du dénoncer da war a fekk fa ñuy tëggee mbir bi parce que ñun ñoo moom ressources yi donc ñu jàpp ni war nañ ci indi suñu xalaat ci loi yi fi jaar yëpp forum civil da ci indi xalaatam ce gouvernement bi aussi jël ko rafetlu ko lii tam ñu ne bala ñu dem ci loi boobu ñun dañu dem à la base ñu remonté jël préoccupation communauté yi ak population yi tëgg ko ci document de synthèse mu nekk suñu contribution ñun ci loi boobu nga xam ne réew mi comme ni ñu ko mos a defee seen tànk boobu rek la fas forum civil fas yéenee taxawee euh, coow laa ñu toll ci gaz ak ñëpp nga lay coow mais Sénégal même on est même pas secteur parce que moins de 2 pour cent du PIB la 0,3 pour cent lañ wax matul sax 1 pour cent de la population active li muy génnee ak njariñ bi mu jur dafa néew trop par rapport ak li mu yàq ak li mu indi ci lor sa loolu li ko indi rek xaatimu contrat yi ndax contrat yi bi ñu ko xoolee caytu ko entreprise yi nationale yi ñoom ñoo ciy gagné plus que waxuma la état bi mais que yi mais loolu dafa laaj taxawin moo tax équation am ak paradoxe ñii dañu taxaw perte seeni lu ñuy dunde ñu nangu seen i tool nangu seen i dund entreprise bi ñëw pas pour soxla réew mi mais pour moom tam def ay milliards de profit état nag moo war a tëddee ndey ji seex mooy fexe ba contrat yooyu jagul ñu revisiter ko ñu renégocier ko pour mu nekk njariñ mais secteur bi moom juróogul njariñ na secteur pétrolier bi comme ni ñu ko jëlee nii xëy na mën nañu yaakaar ni ak waajal bi ñuy waajal eh, mën na def euh, Sénégal tiré ci profit vraiment. depuis 2012 notre pays est cycle de réforme d'abord il y a eu l'adhésion à l'ITIE en 2013 ensuite code minier de 2003 qui a été révisé en 2016. Nous avons aussi deux nouvelles lois, trois nouvelles lois. La loi sur le code pétrolier votée en janvier 2019, le contenu local dans le secteur des en janvier 2019 et récemment la loi gazière. Donc le secteur minier était laissé en rade. C'est pourquoi le Forum civil a jugé utile d'organiser une série d'ateliers. Une série d'ateliers d'abord avec tous les partenaires, institutionnels comme non institutionnels, mais toutes les parties prenantes. D'abord avec les parlementaires, le réseau thématique euh, sur l'énergie dirigé par Abdoulaye Baldé, ensuite avec les syndicalistes du secteur au niveau de Dakar et aujourd'hui à Thiès se tient le premier atelier délocalisé en vue d'anticiper C'est une loi qui est en gestation. L'État, à travers le ministre des Mines, a annoncé récemment que le Sénégal se dotera prochainement d'une nouvelle loi sur le contenu local. Vous savez, dans le secteur minier, il n'y avait que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui n'était pas du tout encadrée, qui était une démarche volontaire des entreprises et qui ne correspondait pas souvent aux priorités ou préoccupations des communautés riveraines impactées. Mais avec cette nouvelle loi qui va définir les contours, euh, l'intervention de ces entreprises sera mieux encadrée et en priorité, en adéquation avec les priorités des populations. Et le Forum civil, dans le cadre d'une logique d'anticipation, mais aussi comme force de proposition, parce que toutes les lois qui ont été votées, le Forum a apporté sa touche, sa pierre angulaire, sa contribution de qualité et qui a toujours été retenue par les autorités. Donc nous sommes toujours dans cette dynamique, recueillir les avis des uns et des autres, surtout des parties prenantes, pour mieux alimenter notre document de de cette nouvelle loi qui sera votée prochainement. Nous avons avons vu que le secteur extractif, on ne parle même pas du secteur encore des hydrocarbures, mais le secteur minier ne profite pas ni à l'État sénégalais, ni aux communautés riveraines, ni aux collectivités impactées. C'est à l'avantage de ces multinationales ou ces entreprises. Parce que les contrats en amont, parce que dans la chaîne de valeur du secteur extractif, il y a la négociation des contrats. qui ont été mal négociés, qui doivent être rééquilibrés, le cadre de nouvelle loi, je pense que les populations peut-être euh, tireront l'épingle du jeu. Autant nous avons un État qui veut développer ce secteur, qui veut booster son économie, parce que vous savez que le secteur minier fait partie des piliers du PSE. Mais autant, nous avons des entreprises, des multinationales, qui ne sont pas des philanthropes, qui sont surtout dans une logique de profit, qui ne sont pas venus pour développer notre pays. Et nous avons des communautés riveraines impactées qui vivent l'externalité, le paradoxe de l'abondance. C'est pourquoi je suis à parler d'équation, parce que ces communautés riveraines impactées, de survie. devrait être dans cette logique d'équilibre. Mais malheureusement, tout se joue dans les contrats. Et les contrats ont été mal négociés. Maintenant, peut-être à l'avenir, essayer de rééquilibrer ou de renégocier ou de revisiter ces contrats. C'est la seule voie qui peut permettre au pays et aux communautés, surtout riveraines, de pouvoir euh, tirer profit de ces ressources minérales.